booy ñaalu xew. santal yàlla booy ñaalu xew. booy ñaa noonu jaaxle na. booy ñaa ngi noonu jaaxle na. booy ñaa ngi noonu jaaxle na. booy ñaa ngi noonu jaaxle na. booy ñaa ngoogu jaaxle na. booy ñaa ngoogu jaaxle na. kan lay wax. nga ñaangoog booy ñaangoog jaaxle na booy ñaangoog jaaxle na booy ñaangoog jaaxle booy ñaangoog booy ñaangoog jaaxle na cey booy ña waaye cey Modou Lo kaay booy sëñ booy mel ni Modou wane Modou na jaloore ah, booy ñaan li ma lay waxoon rek laal tànk Modou waxoon naa la ko. jël tànk mais mënu ko cee daan. loolu moom da cee fooree waaw ci ndig la waroon jëm rek waaye waroon laal tànk foofu la. Seydane Seydane mu ngi noonu ñaa Cheikh lan la santal yàlla booy ñaa am ndam gëmal yàlla. booy ñaa daan am ndam di bëri di daan santal yàlla nga ñaanal ko yàlla moo ànd ak boo waaye boo ñaa wanewul ñàkk jom lan ngay defal booy ñaa doo koy defalee non dara adna mu solo lii la yàlla dogal jàmbaar la dan doon wax day daw day arrière day def naa nangam waaye tey wane na jom ak fula ak ngor ba yàlla suñu borom ñëw. bërekat nga lan nga jàpp ne Boy Niang moom la waroon bëri lu mu bëriwul. non prise bi mu def la juume rek lu mu waroon na déplacé wu tuuti mais war na samp noonu rek mais nag bis bu boo waree daanu da ngay ñàkk ko da doo xam ko quoi lan la. parce gis nañ ni Modou Lo mbiru tàng la nga daan ko tànk jafe na Boy Niang doo jëli tànk dafa mel ne xamul Modou Lo. non non non la sax. song mi moo des rek te ba pare xama rek jël daal bu waree ñëw day ñëw. boo loolu la jël waa Pikine. mais yàlla baax na. jërëjëf yàlla baax na Seydou ki nga kooku ba nga jaaxle moom it Seydou jëlal ma kii tëdd jëlal ma kii waaye Seydou jëlal ma kii Modou Lo la waa Pikine cey Modou Lo cey Modou fan la jëm ak ñun Modou fan la jëm ak waa Pikine surtout waa Pikine yi Modou Lo la jël na waa Pikine Modou Lo ndax mooy meeru Pikine. Modou Lo. Modou Lo ndax Pikine du sant loo garde la couronne. yóbbuwaat na couronne ba waxoon na ko de. Modou Lo. nee woon na da koy yóbbuwaat. le roi des arènes. kaay kaay Seydou. na lu waram rek mooy am. nan sant yàlla. sant yàlla àdduna lu waram rek mooy am. lu waram mooy am borom lu mu def rek daa gën boo àndee la yàlla gëm Muhammadu Rasulullah ñu doon gëm Sëñ Tuubaa lu waram rek mooy am. li ma jaaxal Modou Lo dafa dafa sonal dafa sonal waa Pikine. waaw loolu la lu waram rek mooy am xoolal lu waram rek mooy am apam la rek nguuru rek moo jeex sant yàlla rek lu war a am mooy am kenn mënu ci dara ba ni woon tamit boo ñaa bu àndaloon ku mu dee àndal tey nii lay demee Modou Lo félicitation jeex na tax loolu mooy sport ñun sport la ñuy dund jërëjëf gis ngeen ko noonu cummikaayu Boy Niang jaxasoo na jaaxle nanu parce que kaay kaay kaay Seydou kaay boo met kaay Boy noonu dara yàlla ñëw dafa daan ah, booy ñaa ngi doonu daan bëri di daan booy ñaa booy ñaa booy ñaa mel ni nag Père Mansour mënul ta sa doom tey lan nga jàpp ni moom la bëre fan la juumee ci bëri ma xaw ma lu dama gisul lan la booy ñaa encaissé dafa jël coup wala lan. est-ce que jëlul coup parce que gis nañ jël bi mu jël tànk. ma gisuma gis mu toog man que jëli bi boo ñaaw waroon na jëli. ñun mun ko jëli xaar na. non mënuma wax dara xaw ma comprendre ma comprendre Lo Modou Lo. demal Lo. booy ñaa ngi noonu booy ñaa ngoogu di di jooy kànja ko léegi booy ñaa ngoogu di jooy. booy ñaa ngi noonu kànja koy defal booy ñaa ma ngay jooy booy ñaa numéro 2 ngi noonu di dem ba ngay jooy Pikine amati na naqar. nee ji lan la ndeysaan nee na papa ji lan la lan la na papa ji lan la lool. tey dañ ne teg fa jeexal waaye dañ naan alhamdulilah yàlla parce que tey foogoon nañ ne couronne bi ñoo moom barki Alaaji Fallou Mbacké oh métti mais ñu ngi santaat yàlla barki sëñ Touba ñu ñoo nangu ndogal jàmm day nangu ndogal waaye tey ñoo ko moomoon mais sant yàlla naanaan la boo ñaan naanaan la jàmbaar la joxe na boppam Pikine merewuñu ko barki Alaaji Fàllu merewuma ko sama xol kay moo laaj tey parce que damaa foog damay fom day kuréel bi yóbbu Pikine. Modou Lo la jël waa Pikine. Modou Lo oh mais la barki Alaaji Fàllu boo ñaan jekk woon na lamb ji def na la war a def barki sëñ Bamba daanoon na ko waaye borom bi nag dafa àndal ak ñun nag kañ ak ñun. drapeau président Macky Sall son excellence ma waroon koy yóbbu biir Pikine barke El Hadj Fall drapeau Macky Sall maa ko waroon yóbbu man influenceur Macky Sall bi maa waroon yóbbu tey drapeau Macky Sall Pikine. pare na physiquement entraîné na wane na fulla yàlla mooy joxe ndam jox na ko Modou Lo c'est la loi du sport ñu ngi encouragé sunu mbër di ko wax mu préparé waat pour la prochaine fois dara xewul ñun ñëpp Pikine ñëpp ren ñakk ñàkk suñuy combat mais dara xewul ñun ñëpp ay doom Pikine nañ nañ préparé waat. mais problème mooy mooy loolu sonal bi mu sonal waat. non non c'est la loi du sport grand eh eh eh booy ñaa préparé na ni mu war a préparé woo histoire la lii histoire la booy. Fadel da koo cokkaas mu ñëw war lu muy ñëw lu muy ñëw. mais lu xew da cokkaas mu ñëw mu dóor ko ñaari coups rentrant da koo jël. mu rëbb ko mu cukk mu yaakaar ne fob mënu ko fob nañu respecté ni mu daanoo du yoon du yoon. du yoon. ndeysaan waaw waaw presque quatre combats ñu ñàkk ko quatre ñoom ñëpp a yam ay yambar lañ ñoom ñëpp dañu am entraîné ji te entraîné moom loo mi moom loo mi barki alxuraanu karim maa kattan ba ma nga jël barrière ma li mi boo ba nga dóor boppam kii mbaadu gaañu Seydou kii mbaadu gaañu Seydou kii mbaadu gaañu. Pikine nañu bokk ndey nañ bokk bàyyi Fadel nañ yéenante jàmm Pikine yéenante wuñ li fi nekk xoolal Fadel parce que sëñ Touba Boy Niang yàlla moo yor ndam mais Pikine ànduñu Boy Niang dañ ko seetaan tant que ànduñu ku ngam Boy Niang dañ ko seetaan Fadel Fadel Boy Niang li waroon def yëpp def na ko daanu na ci ngor waaye Pikine nañu ànd mbër amu fi Fadel kuy sa kuy may sa bopp lu la nga jël barke Serigne Saliou Mbacké dan daan dan daan daan muy neex. dan daan problème bi mooy Modou dafa sonal waa Pikine. non amul problème suñu borom àdduna moo demee noonu sant yàlla boo ñaa merewul nga laamu la bu giñ kenn laamu la li ma def na ko. Eh, kaay Cheikh Cheikh am na lu ma waxoon kaay Cheikh kët. bu ñu boolewee xaj ñu kenn mais lii dafa ñaaw benn mbër daan ñetti mbër pour lan. nañu xoolaat Pikine nañ bàyyi yëf dëmm ñu bàyyi borom néegu 3000 francs yi di yàq sa Pikine nañ bàyyi loolu Pikine bu xa bu ñu dajaloo xañ ci kenn muy AS Pikine nag lépp nag nañu dajaloo ñu bàyyi détails yi Modou Lo daanul Boy Niang li daan Boy Niang biir Pikine la ne nañ bàyyi détails yi jërëjëf jë suñ àndul duñ daan waaji wax Seydou Kaay ba tey li may wax kenn ku ne ngi wax li ko naqari mais Modou Lo tey muy combat boo xam tey Boy ñaa war ko woon ñàkk muy combat capital tey lan nga jàpp ni Boy Niang fa la juumee ci parce que Boy Niang xamewuñ ko jël. lamb la rek lamb la rek bilaay Pikine rek xam nga rek am na yoo xam ne mënuñu ko wax waaw mais sant yàlla rek bilaay yàlla baax na gaan Pikine kenn mësuñoo def lii Pikine tant que xol yi nekkul benn Pikine du dem lu toll ni Modou loo ñoo fi ñaat daan daan ñu ñaat yoon daan Eumeu Sène deux fois daan Ama Baldé daan Boy Niang Pikine ñoo war a doon benn Pikine nekkuñu benn nañ tàppe suñu xol yi nekk ay benn ñun xoolal benn drapeau la ñu am muy vert blanc rouge loolu la ñu am ñun ay doom Pikine lañu mu guddi Pikine mu naaj Pikine non nañ nekk benn quoi lii tey jii du yoon doom Pikine yëpp waroon na ñëw tey jii taxaw jàppale mbër mais lii tey du yoon du yoon. mbooloo yàlla kay dee suba yàlla kay dee. loolu mooy meeru Pikine. Fadal xam nga lu ma xam ci làmb ji Fadal xam lu ma métti ci làmb maam lamb ji lamb ji moyenne moyenne moyenne seconde la ñu dippi lamb ji Boy biir lamb ji yëpp yëpp moo ko moom yàlla xam na ko sama téléphone bu ma la woonoon nii nii sama benn xarit nekk ba Casamance moo woo ne ma Aziz ma ko waaw mënu ma lamb nii mun naa mënu ma Boy Niang moo ko moom avant combat bi di commencé mais wax lamb ji Boy ko moom bari na am na ñu ma woo ne ma Modou Lo moom lamb yooyu moom duñ ca basé wu kooku li ko Abdou xoolal du ma la fen lamb mi ngi nii xoolal. xoolal appel mi ngi nii xoolal appel mi ngi nii appel manqué bi. avant ñoo sifflé wax na dañ ko. avant Modou Lo bi nekk ci biir géew gi nii Boy Niang moom moom lamb ji. même même pas ñu depuis lamb ji. mais lenn lenn kese moo ko def te kooku lu leer la ma wax dama waa Pikine ñoo ñoo ñoo ngi dippi lamb ji. danaa tuddal tur. billaahi wallaahi mu ne waa Pikine ñoo dippi lamb waa Pikine la ma wax waa Pikine ñoo dippi lamb man Pikine laa sol gënuñu maa bokk Pikine man bi may ñëw instant tey dama sol dama sol dama sol tiset AS Pikine wala man Pikine laa dëkk mais Pikine lan mooy lii lan mooy lii ñoom dem nañ amuñu biir biir Pikine la xeexee booy ñaa ñoom la Fadel nga Fadel nga baal ma ñun ay doom Pikine lañ Pikine lañ dëkk fa lañ juddoo fa lañ yaroo ba doy nii ñu doy ñun deretu Pikine rek moom mooy daw suñu yaram Pikine bu ñu àndee wallaahi xajum ci kenn ko stade bi boo seetloo booy ñaaw moo ko njëkk a feesal mais tey li am nii tey dafa ñaaw tey Pikine génnuñu Pikine dafa am ay farfarfarloo léegi te farfarloo yooyu amul njëriñ amul kalan jaru ko waa parcelle la ngi ne dañoo booloo moom moo tax ñu am li ñu am booloo moom moo tax ñu am li ñu am tey jii ñun bu ñu booloo woon nekk benn kon billahi wallahi talaay stade bii du yoon stade bii nekk Pikine ñu ñuy jàpp dañu daan nii loolu du yoon loolu dafa ñaaw loolu loolu dafa dafa yegg wax kaay ma loo Pikine loo lu waral loolu xam nga lu waral loolu daan ñaari mbër yu mag Ama Baldé Pikine loo laa ko tuddee Boy Niang mu tuddee ko arène national loo ama seen nag moom moo waral lépp woon moom li yëpp du am ay champion lañ mais dama leen lancé benn message ñoom waa Pikine dëkkuwaay bu mag la sport bi ñun ñoo ko moom nañ booloo bokku ndey bokku baay. yéen ba ngeen Modou Baye wala bu des ci laa. non non des na. dañuy bëreeg booy seen morom la un an deux ans lañ ma gën luñ bëgg bëree ba daan ba bàyyi jóge teg ko tournoi biir parce que bëgg ngeen yéen ak Balla Gaye non non na bàyyi na Modou Lo luñ soxlaati ndi jaay ci suba dama ne dañ koy jëli ji ñëwaat barki Serigne Bamba Mbacke buñ buñ ngémboon mbaru Pikine yëpp benn tàkkusaan mu daan leen ñoom ñëpp Modou Lo ku ko daan daan Modou Lo kan moo ko daan. Balla Gaye ko daan ñaari moo ko daan ak kan. Balla Gaye fii daan ko gis nga lii sport la man côté Pikine laay waxee waxuma côté ay Modou Lo ñun Pikine nan bàyyi suñu xel. buñ kenn jaxase danoo ut si woon. danoo ut si woon yàlla xañ nañu ñun nooy supporté Ama Baldé ñun nooy supporté Modou nooy supporté Boy Niang nooy supporté Eumeu Sène nooy supporté Sokh ñun ñëpp lan danoo ut si woon tey yàlla xañ nu bu kenn dawal sa maayam fenn Ama Baldé dañ ko gunge keroog yàlla xañ ko mm. moom kenn yoru ndam kenn yorul ndam Boy Niang li def yëpp def na ko ñu ne waa eh, def lépp def na ko Fadel ndam lañ ut si woon si deux heures ba léegi ni ngi fi du xaar ndam yàlla xañ na dañuy muñ mais ñun Pikine ñun ñëpp benn lañu yàlla mooy joxe ndam waa Pikine foog ñu def loolu seen bopp kenn yorul ndam mun yoroon ndam mun Pikine Ama Baldé ñibbi ak ak ak roi bi ndam ni woon Modou Lo bis buñ wuuree buñ wuuree nu mu demee la nag waaw lamb nii la demee quoi xam nga da ngay wut si ñaax suba man ko bis boo wuuree ak Modou Lo booy ñaa say la Modou Lo booy bu ci wuuree ak moom say mbokk bàyyi la dëgg la dañuy lancer benn message rek dàq leen xeex gën leen ñeme entraînement grand benn message ngi laaj li yëpp boo gisee li yëpp boo gisee la parcelle am ko doole boobu noonu dafa am ku ko liggéey biir parcelle Assainies muy sunu paa bu baax père ba li yëpp moo ko waral moo moo tax moo tax waa parcelle booloo li des nag léegi mooy parcelle laa jëm parcelle laa jëm dañuy gërëm président jàmbaar Mansour Ba xam nga ko Mansour Ba borom jàmbaar amuñu faye Mansour ñu ngi lay bëggee Seydou Seydou nañ dem parcelle wala leen li xew parcelle ay victoire yi ak ñu mu daan vraiment Modou Lo desalatuñu dara Modou buy bëree amul promoteur amul autorité amul dara ñun ñëpp ay supporters lañ mooy suñu ambassadeur mooy suñu drapeau. li ma jaaxal Pikine ñi bari ñu ngi naan léegi sant. non man du ma yegg foofu man ci cadre sport laa yem li may wax rek mooy Modou Lo mii lu mu waxoon am na loo xam ne dama bëgg mu génnee ci gémmiñam moom mu waxal ko boppam. li ngeen xalaat mooy bàyyi. moom mooy consécration bi dafa confirmé xam ma daan na Ama le ñu naan ay lii laa la Ama Baldé la Modou dafa nekk ndaanaan moo tax mu mën a daan ay champion yii wax dëgg yàlla. ñun waa parcelle li ma leen waxoon statut bi rek moo ci def moo desalatuñu dara. mais ndax am ngeen yaakaar mu bàyyi wala day des ci moom laa lay junj sànq loolu dama bëgg mu génnee ci gémmiñam xam naa ci lu bëri mais duma ci wax. dimanche am na tey lundi premier janvier diggante Modou Lo ak Boy Niang ñi ngi léwtoo Modou Lo pied gauche Boy Niang pied droit Boy Niang la lool Modou moo ñu wan ginnaaw. combat bi ñëpp doon xaar Modou Lo le 5 la fi jóge Ama Baldé la daanoon Boy Niang premier janvier la fi gëjoon Balla la daanoon cey làmb Boy Niang Modou ñaari mbër yaa ngi léewtoo ñaari mbër yaa ngi léewtoo ñaari yaa ngi léewtoo Modou Lo Boy Niang Modou Lo Boy Niang Modou Lo Boy Niang Leewtoo bu diib kenn dóoragul kenn cokkaasagul ndax làmb ji dana gaaw Modou Lo Boy Niang Modou Lo ngeebulu soon Boy Niang la ñu lool waaye Seydou boo xoolee ñaari mbëri xam ne liggéey nañu di nuyu waa réew mi di nuyu le monde entier di wax bonne et heureuse année 2024 yàlla nay atum jàmm atum naataange atum xéewal di wax Dakar Buzz mi ngi souhaité képp ki internet yu suivre Dakar Buzz bonne et heureuse année 2024 di ñaan ci réew mi jàmm bu nu waxee loo xam ne waxul ñu ngi leen koy jéggalu bu nu waxee lu baax mbaaxu sunu boroom la waaye buñ bëggoon rek mooy mu baax Modou Lo Boy Niang Gaston production moon fo mu tombé ak lundi 1er janvier 2024 xalaatoon naa di ci combat bi mënta gaaw mënta gaaw kenn takkul dara Modou Lo ñëw na ñëw ñëwaa ñëw ñëwee woon contre Ama Baldé ñëw na takkul dara Boy Niang ndax daan na xeex Modou Lo ndax daan na xeex Modou Lo Boy Niang Boy Niang woon ko bu dégloo ba jëli ko waaye dama xamoon ne loolu waxi signature la Seydou Jëlama kii xam ki attatul pression bi xam na ñu ngi koy yóbbu xam na ci làmb moo metti làmb ba metti Modou Lo Boy Niang arbitre atte na mënta gaaw mënta gaaw de combat bi mënta gaaw de Modou Lo Boy Niang mënta gaaw arbitre gi wax ñoom sifflé waat na Modou Lo ndax bi yoon dana yegg Modou Lo Boy Niang Modou Lo pied gauche Boy Niang pied droit muy garde normal bu nu xeexee dana neex Seydou laa ci àndal Modou Lo Boy Niang Modou Lo Boy léewtoo boo xam ne cokkaas amagul dóor amagul mépp amagul ñu ngi ñu ngi nappante ci ay bët Modou Lo gi cokkaas Modou gi cokkaas ndax daa bëgg a dem boo jàngi lal tànk bi di ko xaar léewtoo Modou Lo boo ñaa boo ñaa cokkaas Boy Niang Cokaas Boy Niang Modou Lo wax naa ñoom avertissement bi day dal loolu mënta ñàkk bu ngeen ñëwee mu jox leen ko avertir na Modou Lo avertir na Boy Niang kenn na benn sifflé waat na ba tey ñu delluwaat buum ca mbooy mbooy ga Modou Lo Boy Niang Modou Lo Modou Lo Boy Niang xalaatoon naa li ci combat bi mënta gaaw Boy Niang cokkaas Boy Niang cokkaas ndax daa bëgg Modou ñëw ndax Modou daa bëgg Boy Niang ñëw en tout cas ku ci daanu daal yaay ubbi at mi ku ci daan yaay ubbi at mi waaye ku ci daanu yaay ubbi at mi ubbi at ak victoire wala nga ubbi at mi ak défaite ci diggante Modou Lo Boy Niang Dakar Buzz lañ ci àndal dégg nga noonu nee naa ko Modou Lo bi ngay dugg ci làmb Modou nga tudd waaye jom jeeg fulla ji dem na ban tuddee ko xarañ loo Boy Niang bi muy dugg ci làmb Boy Niang numéro 2 la tuddoon dem na ba tuddee ko càppaacoli gi Modou Lo Boy Niang Modou Lo Boy Niang du nuy dibiteri uba jox na ma ndawal gu nooy oño Modou Lo Boy Niang ndax combat bi Modou Lo Boy Niang Seydou laa ci àndal Modou seen gauche moo nge bulu son li Boy Niang seen droite léewtoo boo xam ne dóor amagul cokkaas te ka am xalaatoon naa lii de xalaatoon naa loolu de combat bi mënta gaaw combat capital la Modou Lo Boy Modou Lo kenn dóorul sa moroom cokkaas bu sax bu tax ñu naan cokkaas amagul Modou Lo Boy Niang Modou Lo Boy Niang lumière bi kaay ni kaay côté bi Modou Lo Boy Niang ngeen baanu lumière bi ngeen di seen ci ginnaaw panneau publicitaire la sponsor yi la bëri ñu dara Modou Lo Lumière mooy frotté ci kanam noonu Modou Cokaas Lumière mooy frotté ci ginnaaw noonu publicité la sañu ñu ko bañ ñoo tax làmb jaam Modou Lo Boy Niang ku daan ubbi at meeg victoire ku nu daan nga ubbi at meeg défaite Modou Lo Boy luy xew Modou Lo Boy Niang Modou Lo Modou Lo luy xew Modou Lo dóor ndax ndax dóor mu daan ndayam ndax dóor mu daan ndayam luy am luy am luy am Modou Lo daan na Boy Niang Modou Lo daan na Boy Niang Modou Lo daan na Boy Niang mooy meeru Pikine mooy meeru Pikine Modou Lo meeru Modou Lo mooy meeru Pikine mooy meeru Pikine